asalaamaaleykum kum mbokk yi euh, ñu ngi nuyuwaat baax di leen ziare di leen ndokkeelaat di leen bu baax a baax di leen encouragé waat ngeen abonné ci chaine bi di améliorer votre langue française euh, te bés cloche notification bi ngir mën a obtenir les vidéos suivantes euh, ginnaaw loolu ñu dugg ci leçon bi di le nombre ginnaaw bi nga xam def nañ le genre. di wax ne que ñu ngi dugal sant li ko war a dumay eh, yitte jamono yi moo ñu empêche woon fan yëpp di ko tuub ko jégal bu baax te di leen masaw coono di wax ne lépp loo xam ne dëng la ci eh, vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu ngi koy baal di ko masaw eh, di wax ne sunu dëngte la di wax lépp lu jublu ñu xam ni lépp yàlla la waaw di wax ni yëf ñu ko daal dumay coopération ak solidarité kase kase lañ si jublu waa jubluñ ci dara voilà donc dañuy dugg ci leçon bi rek di le nombre les noms peuvent être au singulier ou au pluriel le singulier désigne un seul être ou une seule chose le pluriel désigne plusieurs êtres ou plusieurs choses noms yi euh, mën nañoo nekk singulier muy benn li arab di wax mufrad wala ñu nekk pluriel muy mbooloo mu euh, singulier moom mi ñu koy li ci jublu moom mooy benn être benn être vivant ni ko benn nit wala benn animal wala benn mbir Hmm. mbooloo mi ñu koy wax li ci jublu moom mooy ay intervenant yu wala ay animaux yu bëri wala ay mbir yu bëree bëri loolu pluriel donc exemple un chat benn muus kon loolu benn être la boo xam sini ne la singulier déjà bu bëri mbooloo mu nekk pluriel ñu naan déjà ay muus maam s loolu mooy pluriel hmm. waaye nag pour faire certains appelés non désigne au singulier un groupe d'êtres ou de choses ànd ak loolu yëpp yenn yi nga xam ne dañ koy woowee non collectif ñoom liñ koy waxee jublu ci euh, euh, liñ koy wax liñ koy wax ci singulier waaye ñoom euh, li ci jublu maanaam dañuy dañuy jublu dañ ay mbir yu bëree bëri hmm, non koy wax yenn jublu ci ay mbir hmm, exemple lëful laful benn mbooloo loolu non collectif la boo xamante ne si biñ ko waxee euh, forme bi dafa yor forme singulier waaye biñ ko waxee mbool na si jublu hmm. Hmm. Euh, exemple ci laful laful laful waaye yëpp yu mel ni moom ci non collectif yi rek noonu la demee ni ki la bétail tamit noonu bi firi xatiya jur xarit benn gileem booy bi tamit gars yi li si jublu moom mooy pluriel euh, mi jàmm xam mbooloo lañ si jublu waaye boo gisee forme bi dafa formé woo ci singulier waaye mu jàmm mbooloo lañ si jublu hmm, mooy non collectif hmm. léegi ñu def attention euh, il existe des noms qui ne s'emploient qu'au pluriel am na ay leen ci noo yoo xamante ne si nii buñ koy di si jublu lu may pluriel mbooloo mbooloo ko si lañ si jublu hmm, buñ koy waxee rek mbooloo lañ sa jublu Saturdays Day Asawul yeneen nooy yi nga xam ne ci jublu ay mbooloo non mbooloo euh, tudduy mbooloo kese don euh, doon pluriel hmm, exemple des archives des pistes des décombres ay documents ki ay jërëk yi des décombres yooyu yëpp fu ñu rek waxee rek euh, tuddi jamono mbooloo pluriel lañ ci jublu hmm, tuddi mbooloo comme ni ko ni mu formé fi ñu koy fi jëfandikoo rek pluriel lañ ci jublu hmm. D'autres n'expriment pas spécialement l'idée de pluralité, les ténèbres, euh, l'obscurité des arts euh, à compte. Hmm. Euh, yeneen nooy yi yeneen nooy yi euh, exprimé wu maanaam particulièrement jubluñ ci di ko jëfandikoo jublu ci idée pluralité hmm. mbooloo déedéet jubluñ ko ci ay les ténèbres dafa yor forme jamoo mbooloo ni pluriel ni waaye jubluñ ji pluriel mbooloo bi déedéet waaye mufrad hmm, des ar des ar itam noonu euh, signification moo nekk noonu nekk ci diggante entre parenthèses quand même waaye dañuy gis ñu yor forme euh, pluriel di mbooloo waaye jubluñ ko jubluñ ko waxee di jublu euh, mufrad di singulier ni suuf hmm. voilà dañu daan yem foofu leçon bi di wax de mi seen Africaine abonné ko ci seen bi ngir nga mën a améliorer ne langue français rawatina grammaire bi particulière bés euh, ko si notification ngir mën a jot les vidéos suivantes voilà donc bu ñu ci biir dañuy ñëw ci euh, les exercices daal koy résoudre mu nekk le exercice social mi ngi aju ci euh, leçon yi nga xam ne ñu détaillé ni concerne ko nga mën ko topp baax a baax boo ko toppee mën laa jëriñ leer naa ñi gën a leer naa ñi nañ te exercice yi rawatina di ànd Euh, cotiser foo xam ne si ne bu leer nañ bu kon ngeen xaar ko baax a wax kon wasalaam nekk si jàmm ba beneen yoon au revoir